xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bekk euh, seen chaîne télé bu jëkk ci wàllu caada di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat tey ci altine ji fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne dellu santaat yàlla bu baax santaat ko bu baax a baax moom mi ñu may ba ñu mën a ñëw teew julli selmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yen ñi nga xamante ni saa su yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko ci mala tëdd ci hôpitaux yeeg ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génn leen waaye way dawlu yi itam ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar kilifa diine fu ci waaye mën a nekk yégal ni ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm gudd fan gu ànd ak wér yàlla bàyyi la fi kilifa aada itam lañ leen dénk ñu mën ci dara yàlla may leen ak wér ak kàttan guñ ko doxee projet yi mën a sotti ba Sénégal soppi xar kanam gën a soppi sax la ñuy wax ndax nag sant yàlla bu baax a baax a baax la ñuy def ndax ñu ñi nga xamante ni daan nañu jàng école jamonoy 1977 lañ ko commencé 78 dugg école wax dëgg yàlla di bëttee école municipale génn gaar ba xam nañu ne soppi na xar kanam macha allah kon yàlla ko yàlla yokk jaarale ko ci loxo yi sunu njiit yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk réew mi. réew mi sax ci la ñuy des nuyu képp koo xamante ni yaa ngi toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan wala nga ñuy jaare ci 88 point rek euh, seen rajo origine FM ñoom ñëpp ñu leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di ñaan daal koor gi nga xamante ni ñëw na fekk ñu fi. di waajal di takk ay bagaasam nii di dem ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla ñu fi bàyyeeg jàmm bu dellu siwaatee yàlla ñu fi fekk ay yoon yu baree bari luñ ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu lu euh, luñ ci jaamu sunu borom ci jàkka yi ci jumaa yi ci joxe ñam ci taxaw nit ñi bépp gest boo xamante ni daal koor gi moo tax ñu mandargaal ko ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla nañ ko sunu borom fay ñun ñëpp ak képp ku ko def waaye itam yàlla xiir ñu ba ñu wéy di ko def ci yeneen fukki weer ak benn yi nga xamante ni moo ci topp ndax lépp nag ay ngëneel la lépp ay baax baax la wax dëgg yàlla ak cant war na ñëpp ñi nga xamante ni itam fekku leen fi wala dooroon nañ ko ba noppi waaye fekku leen fi fa ñu jëm yàlla na gënal leen fi ñu bàyyi ko yàlla na yàlla def àllaaxira doon seen noflaay ci barke weeru koor yàlla nañu mën yërmande sunu borom giñ ci wax ci weeru koor yàlla na képp koo xamante ni yaa ngi ci biir suuf dajeeg moom ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam en tout cas dañu wax ne tey ci des subaa ci des euh, lu mu ci mënti doon rek période ñaan la nañ ci profité ñaanalante ndax kenn ku ci nekk wax naa leen ko ba tey sa xol mooy sa wërsëg te it nag li nga yéene sa morom rek mooy li lay dal des fois boo nekkee ci ay giita ngas ba mu taay li taay ba mu yàgg rek dugal ki sa ruq nga xool li nga yéene woon gaa yi lan la nga daal di delloo siwaat sa xel wala nga yokk ko ndax lu mu ci mënti doon rek euh, di nga xam ne euh, sunu borom moo koy fayal boppam en tout cas ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di baalu ñëpp ak rawatina mbokk yi nekk bitim réew itam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax mosuñoo jóg di tàgg ànd ak ñoom depuis bi ñu dooree seen émission kër gi 2007 ak léegi saa yu ñu yeewoo rek ñaanal leen saa yu ñu yeewoo ñoom tam ñu di ñu ñaanal cofeel gi di gën a yokku kon loolu yàlla na ko sunu borom saxal te nangul ñu ko spécial déwénati baalante àq revenir loo waatal xel yi lay doon mhm. ma seq ko nag ak ki nga xamante ni mooy sama jarbaat en attendant di xaarandi sama imam ndem dina ñëw incha allahu taala waaye lépp nag dañ koy ànd ak yéen ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 muy numéro international bi ngeen mën ko àndandoo ak ñun ci biir émission bi su ko defee ñu daal di seq waxtaan rek delloo si waat xel yi nag surtout nag jigéen ñi kon jànq maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow da nga korité goo déedéet ni nga koy waajalee. waaw gis nga wàccaay korite mhm, ñun mag ñi yi la ñuy def waaye yow ni ngeen ko defee man daf ma neex ñun dañuy cëppoo suñuy wax si yu baax macha allah mhm. def jour sa kaw waa def sama jour ci kaw rek daal di ànd daba jaw fa toj daba nee ko kalaafe taay gabonaise ati ah. dina la demander autorisation waaw ah, da lay laaj ci mhm. ku demandé wul moom permission du mën a du dem du dem dem daba kor bi tey <laughs> macha allah ay ca macha allah rafet bi rafet na macha allah <laughs> maa ngi lay nuyu baax a baax yimpañ maa ngi lay fay di kontaane di am mbégte saa su nekk rek su ma xëyee jàkkaarloo ak yow ñu fas yéene kër gi koy defee saa su nekk comme ni képp koo xam ne daf ñuy seetaan sur la 2STV su ko omi si suuf di ko njëkkee sama yaay ji dañuy suba Mar Gueye mi si bétuwaar bi si Ndakaaru yaay awa sama rakki yëpp xam nga ne tey la altine suñu premier numéro de la semaine ñu fas yéene ñu koy defee saa su ne mhm. di wax teg waxtaaj ku nekk jël sa la benn bàjjen boo xam ne sama bàjjenu xol la bàjjen Abi Diop baax di ko nuyu baax a baax mu nga fa sa diwaanu Wakaam mu sama rakku bàjjen nday ba ak ñoom ñoom bàjjen maam Coroog bàjjen ku mbëppal maa ngi leen di ziar yi ñeet di leen jaajëfal mhm. Impagne xanaa ma delloowaat la kàddu gi waaw euh, jërëjëf ñu kontaan ci bu baax a baax ci noonu nga nuyoo say bàjjen di sunuy sœur sama chéri ba euh, Yaxa jaa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ni mooy awa waaye kenn du sama sama sama kii sama chérif Mamina <laughs> sama chérif Mamina Bapuloo borom café gu baax gi <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar ay eh, bàyyi jàmbur li mu li mu def rek a baax maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di wax ne rek euh, euh, dañuy def ab tënk rek parce que mhm. diggante bi yëkkati fi tem xëy na du fi xaj waaye nag euh, jamonoy korite ci la ñu toll mhm. tey incha allahu taala dañuy àndandoo ak yéen mhm. waxtaan ak nit ñi delloo siwaat xelu jigéen ñi ni nga ko waxee ñu doylu doylu nag bu ñu ko dee wax itam ñii nga xamante ni ñoom la soqal àddina itam nañu góorgóorlu man toujours damay delluwaat ci ñoom. Mhm. am na loo xamante ni bu ko jigéen nammee ba di ko wuti. ci mbedd mi du sandam. te nag waxuma ki nga xamante ne day toog naan maa ngi nii xëy naa suba ba ngoon jot. Mhm. benn ñeent téeméer laa mën a lijjanti. Mhm. na la ko sa jabar téyel te korkoral la ko. war naa mën a nekk. waaye man xam nga bi ma bañ mooy ban. du ma ci sonn du ma ci rey sama bopp. su ma ko amee indi ko su ma ko amul du ma ko wëri. yaa ngi ci taatu grand place yi mhm. yaa ngi seet xale yu ndaw yi mhm. koo may cheveux ñeenti téeméer mhm. koo may bu juróom benn téeméer wàcc sa jabar ji ci kër ga ci jamonoy korité te naan gaspillage lay bañ boobu itam faaw dinañ ci dugg waaye nag nañ ñëw ci doylu ndax moo indi woon lañ doon waxaa wax keroog muy jigéen ñoo ñu duggoon ca marché ba tey jëlee fi jàmbur xam nga impañ Sénégal bu ñu ne jamonoy feet rek ñëpp dañ naa kër kër daanu si kaw bu ko defee jigéen ñi. surtout instant bi téléphone yëpp boîte vocale la jëm. ndax lan vidéo nañ xale jigéen ñi nañ leen suruus. <laughs> ku ngeen woo mu def leen li. non li suruus la la xale góor di dugal. léegi nag yow bu fekkonte ne xëyoo gonto am day petaaw nga yaakaaroo leen lu dul si ñoom. waaw boobaa nag say topp di nangi nangi. bu dee classe aw nga am ñoom dañ lay bloqué ñoom tamit ndànk waaye bu dee petaaw am da say topp allo allo waaw woo ba sonn wala ab beneen numéro pour woo la rek pour jot la waaw lan moo tax nga ne ko non problème leen dugal. ku ngeen woo jotu leen ko gëm leen yàlla xam ne lu su rouge la bu passé bu leen ko de bu leen ko yóbbu liste blanc est-ce que portable yi dugg ci ndox yi musul dugg ci ndox <laughs> dinaa koy dégg de sam portable dafa duggoon si ndox musul dugg ci ndox li su dañu yóbbu xale jigéen yëpp parce que xam nañ ne bu fekkente ne xale jigéen liggéey ñu yaakaar ci ñoom mhm. événement jot ngeen leen di këyitloo fekk na xale ma xale góor yi tamit ju suñu wallaay ndeysaan nga leen di ñu jëloon seen yaakaar yi bekk leen ko suñu wallaay moo tax ñuy faral di wax saasu nekk rek y a pas de noo mën a def ba am sa soxla di ko fajal sa bopp wallaay def ko bu ko defee bu ñëwee bu la defalee xayru bu la defalee yow sant nga yàlla sant nga yàlla xam nga ndaw si daf may nettali benn anecdote nee na dafa dajeeg benn waay si si benn carrefour mm-hmm. génn nii juste waa a xamul fu mu jëm. waaw euh, mu ne ko jox ma sa numéro téléphone. Mm-hmm. ndaw si nag ma yaakaar mu ne ko jox ma sa numéro téléphone ndaw si génn téléphone di ko jox waa ji ndaw si yor benn marque waa ji yor même marque boobu. waaw waa ji invité ko reer. waaw ndaw si taal otoom ñëw reer si. waa ji taal otoom ñëw reer si. waaw ñu pare waa ji di fay ndaw si ne ko noo bàyyil ma fay ndaw si nag keroog laa gëj a gis waa ji. Hmm? mu ne xam nga tey fi tey bu fekkonte ne lu sérieux moo ko tax a jóg dina xam ne xaaruma si moom dara waaw mais peut-être ñëw na xool maa ngi moom ñoo tolloo mu xam ne kii mënuma nax mënuma jaar fenn moo tax mu mujj dem pour xale si loolu gis nga instant bi mhm. ne ñu ngi leen koy def pour rek foofu la danger bi foofu sax laay wax parce que xam bu fekkente ne da nga am sab xale bu góor mu dugal la liste rejet mhm. nga mënatoo koo jot téléphone mhm. nga daje paa bu boo xamante ni yàlla dénk na ko doole doole ah. dénk ko wërsëg te dara yàlla donaay dona bu boobaa donnaa donnaa lay doon donnaa donnaa lay doon. après ndogu bi noonu donnaa donnaa lay doon. ma àggale wala ma kii tënk foofu. déet man kay damaa buuma yaay àggale kay. <laughs> donnaa donnaa lay doon da lay woo xam nga. Mm-hmm. ne la mm-hmm. fekk ma bërëb sàngam nga fekk ko béréb sàngam nga ne ko man de nangam laa bëgg mu ne la amul problème. moo tax xale yi dañuy sañc si kaw ba suuf valeur bu 500000 te seen yaay yorul fukki dërëm yu suukar café. gis nga te nag li ma ci metti mooy. Mm-hmm. am na yaay yoo xamante ni loolu safu leen. déedéet mais am na yaay yoo xamante ni dañuy tiitaroo seen doom mel noonu. waaw te fi mu ne garam bu bu xartum ba ñu sol. sër ba cat la. Mhm. waaxu nañ ba mu fit. ñu wut bu saak mhm. sa doom mel ni tubaab nga koy kaw kawee ndax ni mu mel ak ni mu solo. te yow lekkoo ci naanoo ci yow mi yaay ji. te yow daf la leer ne sax lii mu jël nii mu sol kaw ba ba suuf. seddul ci moom ah yaa ko xam-xam nga ko di xam nga ne li sama yaay na ah ka tay tay nga xam ne kii li nga sol li mu sol seddul ci moom ndax xale bu jigéen boo xamante ne liggéeyul a takk cheveux bu trois mille sol eh, mbubu comme yi ñuy ñaw léegi nga xam dañ koy wékk mën nga jënd benn bu 150 mille ndax dafay jàmp wala bu 200 mille waaw nee naa 500 mille dee na nga doog a dem pose sa ongle ak say wewe ak ñoom seen ak yooyu yëpp def say daal ak sa saak ndax daal xam nga saak da koy génne waaw léegi nag yooyu yëpp boo paree boo ko calculé na leen dundal seen kër at mais da koy yàq si da nga bi maire bi dem ci fajar pour mën a am ci madd yeeg mango yi muy jaay ci taabal ji wala mu mën a am ñetti yaabo yu mu teg ci taabal ci fajar gi heure boobu ngay tëdd si bien heure boobu ngay tëdd si su ko defee mun la tegal naa la ndox maa ngi foofu wala xale yi bu ñu yeewoo jëndal la mburu ndax du la ñeme ndey ji sax dala du ñeme léegi ne xam nga way jur boo juree sa doom dem ba ñemeetoo ko loolu yow moom nekkatoo kilifa ki ne fëng nga doon parce que boo ko defee alkaati bu màggee yow lay maajloo di mu ngi noonu léegi nag comme yow maajloo boobu ngay dem mhm. xam nga bu njëkkoon suñu waajur yi doylu gi ñu doylu moon moo waral tax doom du yor leen saf déedéet mais jamono ji ñu toll am na doom yoo xamante ne ñoo ilif seen i waajur mhm. ndax lan poñetu àdduna àdduna ndax lan li ñuy dàq te duñ ko jot surtout jamono bi léegi nag bu fekkante ne yow xale bu jigéen yaa nekk sa kër ga mhm. lépp lu dee yow yaa ko fa rey yee a pare xëyoo gontoo xam nga xale yi sax léegi am nañu jom ak fulla takk seen digg di liggéey di liggéey bu baax dégg di yor seeni waajur bés bu set nit woo ma ne ma ndax gisoo fu ma mën a liggéey entretien ah, baleeg fobeere wala raxas wala nangam lu ma ci am rek ndax samay waajur dafa dañoo sonn très bien te ma bëgg a dee ci ngor man boobu loolu damay fier damay jël sa numéro dëgg la pour bu ma déggee lu mel noonu bien que yombul waaw yombul ah. voilà allez xam nga man boobu bëgg naa mhm. nga ñëw di këtti këtti dimbali say wayjur yàlla di la yokk ngay fulandi di dem pas à bu baax mais bi ñuy bañ mooy yow nga nekk sa la la neex mu leen na li ngay jox sa yaay mu di ko lekk du dërëm bu ci lew da ngay jël si euh, dabba jóge fa dem si euh, kii nu mu tuddati njaay jóge fa dem si kii jóge fa dem si kii boole yooyu yëpp ñëw indi def teg seen kër nga foog ne lii nga jox say wajur tiitar la fekk na du tiitar yaa ngi leen di posone mu ngi noonu nañu gën a delloowaat seen xel wajur ba pare nag boole ko commandé fi mu ne korite gi yaaya ngi xaar ndax commandé na ginaar yi yaaya ngi xaar ndax commandé na ndugg mi mm-hmm. ñu ne ndugg mi ñëw na suba dinañ ko indi te dañ ci boole réew ba dof nag mm-hmm. ndax dañuy joxe nelaw ba seen bët neewi non non am na xale jigéen ñi nekk ci kër yoo xamante ni te nag léeg-léeg ndeysaan doo sikk seen yaay danga naan amuñu pexe waaye nag woor ba weeru koor jeex nga war koo korité mm. xoolal li la sa doom di jox nga di ko korité lan la nag mooy fulla nag dafa jot mooy fulla jaral na ma man ma fiiri sama yaabooy rayu kenn waaw lu béy daan dunde ba sax sikkim mën na caa jàpp ba yow fekk ba xam nga ne am na ay kër yoo xamante ne korité daan na jot du ñu lekk lu ñu toogee si cin ah te tey anamu lépp dafay jeex xam nga Impaañ bu dul woon nettal lu waay neex mel. dëgg la. walaay Thiam bu dul woon nettal lu waay neex. lu waay neex mel kon nag bis bi nga xamante ne ganaar ngay togg nga amoo ko la nga toog muñ uuf sax njaboot ngeen bokk muñ. ba tey neex neex ñëw kon bu leen neexee galaya yàlla yàllaa koy indi sax parce que yàlla mi la orloo mu ngi noonu nga ne ko sama korité gi du ma ci korité lu dul lu dagan mhm. te sama doom ji xam naa ni mhm. mënuma koo rey mënuma koo mbankaan mënuma koo def dara dama koy bàyyi ak yàlla mhm. ci yoon wi nga xamante ni moom la jël na ko jël waaye léppam laa suur parce que nag lu may lekk dama koy xam. Mhm. nga toog te xaar yàlla xool. Mhm. jaay yàlla mooy jóge fee ŋàbb bu dee benn ginaar la sax bu ñëpp xeeñalee nga xeeñal bu ñëpp mariné nga mariné te ñaan yàlla nag bu déwénee yàlla soppi jamono bu boobaa yàlla da koy def parce que nag mhm. yàlla ku mu liggéeyloo ku ne dalaa nar a fay barki de keroog bi ñu ñibbi si ndaw si lu mu wax mhm. dafa toog de waa yàlla na ñëw ma am lu ma ndogu jee ma am lu ma ndogu jee ñu romb fa gaare <laughs> ku nekk jënd ku nekk jënd jënd jënd ci bagage yi wallaay sama waa xamoon naa dina ñëw mu ngi noonu te damaa war a joxe ndogu ma woo sëñ Fall yàlla yabalal ma sëñ Fall mu la fi jóge ma war ko jox ma ne ko ah yàlla baax na léegi sëñ Fallou yónnee pour wax ne nit ki li nga gëm rek suñu borom dala siy jàppale dala siy jàppale mais boo nee yàcc ne aw ma pexe sama doom ji xam naa ni li may indi lewul waaye nu may def bu boobaa ci ngay dund suñu borom setaan la waaw kon nañu delloo siwaat xel yi bu baax a baax a baax mhm. xool ni nga xamante ni noonu la ñuy dunde mhm. ak ni nga xamante ni noonu la ñuy nekkee ak euh, suñuy wayjur mhm. xale yi euh, bu ñu bëgg xaalis bu yomb bu ñu bëgg facilité facilité tant que yaa ngi koy bëgg dafay indi musiba des fois da ngay toog di wax sax ñu naan waaw waaw am gone de ku ne jaar na ci. Mhm. ok waaye nag. am na ci non daf ci am ñoo xamante ne sax seen ngone mhm. mën nañ ko tracer nit ñi di ko wax. nit ñi di ko wax. Mhm. amul ah ku amul défaut amul mais amul gàkk yoo xamante ni. Mhm. mën naa indi dara te booy wax ak xale mu nekk ci jamonoy neex-neex. Mhm. surtout jamonoy alal. dafay yaakaar ne kii da ko iñaane lii wala dara. mais nañu fonkaat waajur yi. nañu liggéeyaat liggéey bu sell. nañu jaay sunu bopp yàlla dénk ñu borom kër. te ku yàlla jox dara nga fàttaliku sa waajur itam. am na ñoo xamante ni am nañ bu lew. am nañ bu sell am nañ boo xamante ni macha allah ku ko korite it ngërëmal yàlla nga ci am mhm. waaye iñaane nañ cee jox seen way jur itam mhm. ñooñu tam nañu waxtaan ak ñoom mhm. ñu teel a taxaw seen way jur teel leen a jàppale ndax daf ci am solo day am solo day am solo yimpañ parce que dama leen faral di wax ne la bëgg la sa borom sa yaay ba la juree ak li mu daj ci yow ba nga màgg nga war a mën a liggéey ba am sa xaalis yor sa teraanga di nëbb sa yaay xam nga ne doo ko teral te mi ngi fi ne gàññ du jeex mi ngi fi ne gàññ am sa alal nëbb sa yaay moo ñu judduwaat te jamono yooyu jamonoy gone yii la waaw mais yow da nga naan man sama yaay ni ma mel mais attends da ngay naan man ni ma mel <laughs> taxaw si seetu xool ne mais man mère bi waru ko présenté ne sama yaay la te pourtant de boo ko li xali woon mu li xaliku da ngay fay sax jarul doo am temps wu li xali ko yàlla da lay fay waaw yàlla dalay fay nga ni géyeem nip taal bu ñu sotti ndox mais xam nga toroxtaange impañ buy door dafay neex dafay neex waaw commencement bi nag day neex mhm. loo yootu jot ko loo ragal dootoo ko gis nga naan nangam ak nangam jël sa yaay nëbbu teg ne ut yeneen yaay yu bees yaay VIP yi nga xamante ne tabarkàlla macha allah da nga koy présenté da ngay dem jël benn Adja Mbaye naa kii mooy sama yaay taf ko taf taf ko fii si sa boutongu semis foo jëm ànd ak moom ñu naan ndeysaan kon kii mooy yaayam fekk na booba yaay jàng kër ga da koo nëbb ak bi xew léegi sax léeg wax naa ko keroog benn xale mhm. ma ne ko foo fëgg. Mhm. ne jabar laa bëgg. Mhm. dañ lay may. dëgg la foo fëgg ne jabar bëgg rek dañ lay may xam nga li mhm. ko waral lan la. waaw la sa yaay jëlee ca bulletin de naissance ba. ba indi la ci bulletin de salaire ba. waaye tey boo doon débrouiller. nekk di yenu. bu subaa yaa nga géej bu ginnaaw subaa yaa nga poor mhm. di wut ñeen fukki dërëm yoo def sa poos buntu boo fëgg dañ la naan ndax xam nga sa bopp mhm. te nag foofa mhm. yaay yooyu sama goro bi ni ma bëggee sama goro bi fi ma teg man xamul tax sama yaay munu ma munu munu maa teg foofu ah cëm kuy jël yaay di ko méngaleeg goro yaa ngi ci erreur parce que goro bi bu lu mu xam day jëlaat doomam wala mu roñ ay bagaasam dem waaye yaay du la wan ginnaaw mu ex maman dafa am déedéet ex femme am na ex belle kon nga fi ex excès rek nga xamante ne ex bu mu ñëwee bu la jox nga jël ko def ko sa bopp. macha allah fa tabarakallah 77 <laughs> <laughs> déggal 88 <laughs> da ngaa wax dëgg gu wér péng macha allah li tax ma bëgg la ci sama wet 88 la 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 nañ ñu xoolal téléphone bi. Mhm. xale yi ci boppam kenn ku ci nekk ñu jox la sa wàll. Mhm. Euh, borom kër gi itam na góorgóorlu. Mhm. borom kër day góorgóorlu. boo demee ba ne takk nga soxna. mu yor doom yu ndaw. jabar yëpp a ngi ci mbedd mi fi mu ne. wallaay ku yaa ngi ñaanaatu. Mhm. ku yaa ngi taxawaalu. Mhm. man euh, bu ma daan bi ma daan jaay marché. Mhm. bu ma gisee jaboot joo xamante ni ndeysaan day boot kenn jàpp ñaar ci loxo. nekk ci xat-xatu marché bi. léeg-léeg nga joxoñ ko rob ay robb ak ay dàll laa daan jaay léeg nga joxoñ ko robb ay soxna si mm. bii moom day xaw a tàng ci man seetal ma beneen nga dem génne robb boo xamante ni 2000 lay jar mm-hmm. muy waxaale na la 1500 mm-hmm. bëgg ci jëndal kii robb bëgg jëndal kii mm-hmm. euh, flottant ak kii wala mu seetal ko ci sabadoor yi ñi ñaw ndax mu gën a yomb wuti marakiis wuti dàll te mu ngi boot kenn ñaq tooy xep war a taali ji ndogu sama yaram day daw ba loo bu ma fayee la ma ko jënde woon wala lu ko gën a ma jox ko ko parce que lan yërmande gi nga xamante dama koy am ci moom te loolu yëpp ñàkk a mat bi moo ko waral mhm. xëy na borom kër bi amu ko mhm. waaye am na saay-saay bu ko am boo xamante jox ko ndey pettaaw mhm. da koy gënal mu jox ko njabootam doom waxal ma ci ñooñu waaw yimpañ xam nga yow boo yoree sa njaboot li nga war a def si ñoom defoo ko nga dem di ko defee ji sa ñu naan doom ji du du tekki du avancé ndax ndax ni mu def baayam du ko wàññi dara. lu tax parce que baay ba la mu waroon def si doom ji defe ko ci moom. ndax doom dina juddu gis papaam yor xaalis bu jeex. du xaaj te yàlla dafa juste moom. mais Dieu est doom day juddu gis papaam yor bu jeex du xaaj. i ñaane na koo jox yaayam ji ko sukk jur. ba pare yaay jàng jur ay doom teg. Mm. du ñu lekk du ñu naan. bu ñu mm. sombee mën nañoo toog une semaine dañu sombiwaat mm-hmm. yaa may dégg mm-hmm. nga ànd ak loolu say doom di kurti kurti ba xëy say doom di daanoo ko jug yàlla barkeel leen ndax la nga seen kër bàyyi coono googu du niin yàlla barkeel sa njaboot mm. doom yooyu bu ñu seetulee seen digganteek seen way jur rek def te yàlla tax bu leen mm. neexee dañuy bank seeni loxo mm-hmm. te duñ ci am daanu yàlla parce que li waral tax duñ ci am daanu yàlla la seen wayjur waroon a def si ñoom defu ko si ñoom donte dañ naa jur nen la doom waajur xeer la doom nen la am na ko ndoy baan nee na am na waajur yoo xam ne ay wëteen lañu waaw bu ko defee bu ëlbatikoo toj ci moom tam du ko wàññi dara da wëteen daa mënta daa toj kenn mu ngi noonu léegi nag bu fekkante ne jamono jooju la nekk mm-hmm. souvent lan moo gën a metti yow nga yor sa xaalis waaw fayeeku teg ko nii mu leer ma ne sam papa war na mën a jënd kër war na mën a bala ngaa fayeeku di tekki taabal ji da ngay dikkale yaayam le 28 29 30 foofu yaay ji du wax nga wax histoire bu ne di nga ko sulli pour lan bëgg dëkk ci mbedd mi bëgg xëllantoog moom xaalis boobu ah. demal fa nga nekkoon mu ngi noonu mhm. nga xëllantoo ko dem jël xaalis bi gaspiller ko ba mu jeex mhm. événement jot sa doom ne la papa jëndal ma yére wala jëndal ma dàll nga ne ko du la jox lekk ba suur rek laatal am na ñoo lekk ba suur ak fexeel ba lekk noonu xale daal na lekk ba suur man de dégg naa ko ba taay waaw léegi yow fexeel lekk ba suur boobu mhm. boobu na am na jaajëf am na ñoo xam lekk goog lañ si dul jaar xanaa gën a metti te bu ngoonee ñu seen bu rafet ne leen dañ leen invité waaw mais dañuy xeeñ parfum bu neex la classe. waaw ay homme VIP la ñuy doon di ñoññantal seen i jabar si kër gi ak doom yi si kër gi léegi jooju doom bu màggee am la mu am boole kook yaayam féetoo ko xoolul diggante ak waajur bi bi ñuy wax si alxuraan mu jël li mu am boo féetoo kook yaayam papa ji dem ba jëmmi jamono kaay ma wax la yàgg yàgg doom yooyu ñoo la yor ah. ah loolu nga naan. yaa ngi dégg léegi bu fekkante ne doom bi am na ku si man ñu jël ko si bu fekkee am na ku ci ñu jël kooku bu màggee lan la ñuy indil macha allah yal na yàlla la cat sama doom ji waaleykum salaam wa ñu ngi delloo ziar baax sama sëriñ tur bi naka la fooy wootee. ah suma xarit nga lebal sa xarit laa. ma ah, lebal naa la ko. maa ngi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. juste dama bëggoon intervenir ci côté yaay. waaw. man mun na maa waat sama soxna du déet di jaay ndax sama yaay moom koy génn. mu sa soxna du. du génn di jaay wala muy nekk ci mbedd bi di taxawaalu. waaw sama yaay moo ko liggéeyal. sa yaay moo la ko liggéeyal. moo ma ko waaw góor doom nga xam ko la ko yaayam liggéeyal. Hmm. moom na ko dee mais li ma sama yaay liggéeyal. Hmm. waaw mën naa ko cee yor bu ma tàngoo suuf. macha allah macha allah nga nangu ko joxe itam. parce que dama dama judd. Hmm. ndeysaan li ñuy wax table rase. ko dara. maanaam. maanaam nga jubbi ko fi dara. waaw. war fee def dara. Mm-hmm. fekk yow da ngay feccali mais yaay solal na la ba pare. dëgg la. laay dëgg la. loolu boo ko xamul noonu. wallaahi toog départ bi mu la fi fekk ci la fi fekk. wallaahi. man ku gërëm sama yaay la. wallaahi ak may itam. ma juru góor gërëm naa ko de mais sama yaay. ndeysaan. parce que moo ma liggéeyal sama kër papa lii ma am nii ma am. wallaahi al azim ak sama yaayi bopp man. Mm. ku ku ku xool ku xool wala ku ñàkk fayet hmm. ba kenn yàpp sa yaay hmm. ci yow la jërëjëf nit ki day am fulla ci boppam jërëjëf walaay am na solo nangul li ko yaayam liggéey hmm, mu teg ci tuuti rek day teg tuuti rek dem ndeysaan jarul muy sonn ci àll day teg tuuti rek dem sama waajur góor bu baax a baax yàlla na ko suuf daal ñu oyof ñoom la ñoo ñu tànnal yaay. maa bu baax loolu rek a. bëgg nañu la mhm. bëgg nañu la yow itam kontaan nañ ci maa ngi lay bu baax maa ngi lay delloo ziar bu na ko yàlla tàbbal ci nopp bépp doom boo xamante ni. yaa ngi toog jàkkaarlook ñun di ñu seetaan te nar a am jom. Mhm. nar a am ëllëg gu baax. Mhm. Euh, tor euh, wax nañ ko nee nañ toroxtaange goo gis ndorte la day neex Euh, waaye nag mën naa bañ a kelkeli mhm. kon doom yi nañu delloo siwaat seen xel bu baax a baax ci seen wayjur mhm. ndayam liggéeyal na ko loo xamante ni mën na cee dund ba yeewu dee mm, toujours ma wax leen ko rek ne leen tigaala jaala moom jayla waa ni ma tabara yaasin moom la borom maga neex mhm. barke tagg bi yëpp maga neex moom ma si neex borom maga neex <laughs> man ma neex si mère Dieng maga neex mu ngi noonu mu allah euh, dañu liggéey dañu sonn euh, te it nag kenn du suñu bàyyi yi nga xamante ni ñoom ñoo leen tànnoon ñoom parce que fekkoon nañ fi ñeneen tànn leen ñoom kon bu ñu meññee ñun ba ñu mën leen a gërëm mm-hmm. macha allah fa tabarakallahu mm-hmm. euh, sunu baay ba euh, Babel Demba ak borom ne ni waas ko woon ni rey borom mm-hmm. euh, yàlla na xippee aljanna yàlla defal góor gu lewet goo xamante ni da da ngay tàyyi di wax ci moom sax parce que mënoo ne moo mës a wax lii moom sam papa wala moo mës a def lii boo ko ñaanee jabar sa danaan waaw baax na waxtaan leen ak seen yaay rek carrément <laughs> Babel Demba yàlla na yàlla seral sa bàmmeel comme ni nga serale woon sa kër seral sa njaboot sa lépp incha allahu taala donc euh, euh, nga ne doom yooyu boo ci amee bu màgg xam nga doom yooyu boo ci amee bu màgg mm. xool li mu yaayam dundoon yëpp mm. mu bëgg koo fay mm. jël yaayam teg wetam li mu am di ko bokk ak yaayam bu ko defee papa ji daal di gis boppam ne moo ne mooy sama taaw de moo ne moom de nangam ak nangam benn waay benn taximaan moom mos a expliqué mu ne man day man dem naa ba woo sam papa pour a def ak moom toj pénc Hmm? ma ne ko lan mooy toj penc mu ne ma pour ma woo ko sa penc ma mu toog ay magam toog mu wax ma man lan la ma beñe hmm. ma ne ko lan nga def mu ne ma defuma ko dara hmm. sama yaay daal la iñaane man lu ma am def sama yaay dem na ba lu nekk mu ma koy wax ba ne moom sama ne daf ma déshérité ah déshérité ne ko ci ci miraas bi waaw mu ne ma léegi nag man maa ngay kër kër suñu dëkk tabax kër ba ba bëgg fa yóbbu sama yaay mu ne ay la buri sarax loolu du am loo dégg si dëkk bi ma ne ko naa mu ne man day sam moom mu koy wax moo tax ma dama dem ba bëgg def ko eh, xaw ma teg penj la xaw mais keroog damay ree waaj ko jotaay waaw bay bëgg a dee déedéet jaru ko na def li muy def man dama yàgg dégg ñu ne tant que amoo gis nga sa borom kër mën ngaa wujjeeg goro mhm. mën ngaa wujjeeg njëkkee mhm. mën ngaa wujjeeg wuj wala wujju peccor go mais sa wujju dëgg xam nga kañ nga koy am bu say doom màggee mhm. te sa jëkkër lay doon far force mbokk allo salaamaaleykum waaleykum salaam. sama sëriñ ñu ngi lay ziar. ngi lay nangu ziar. tur bi naka la ak fooy woote. maa ngi woote ba boori Bakel dëkk bu tudd Bokkilaaji. Barkeji yow rek la ñuy déglu sama sëriñ. wax ma Barkeji bokk Bokkilaaji laa la wax. Bokki. Bokkilaaji. ah Bokkilaaji. waaw. d'accord nañ ñu wàññil son bi tuuti parce que dafay def bruit moo tax duñ dégg bu baax euh, sa participation allo. moo mooy lii. waaw dolli leen tuuti rek waaw. Mhm. ginnaaw bi ma leen gërëm leen sant ba ah bi doore mooy lu ngeen xam ci béy bu mat gan gi kan la teg gàcce gi. lu ngeen xam ci. béy bu mat gan gi kan la teg gàcce gi. béy bi mat gan gi. Hmm. kan la teg gàcce. Hmm. xanaa borom kër gi. xaj bala kay. ah. xaj ba xaj bala teg gàcce gi. nee na xaj ah. ba la dëgg. wax ba xam nga fi mu sukkandikoo. waaw. yaay ji defar tuwee ji raxas ko dindi ci puub ba mu set. waaw. ba yow ñu defoo ci dara ba nga gis ko muy laab xel ne bëgg nga bëgg ko. waaw. ah xam nga ni yow ki war a gis ndam léegi mbëggeel gi. Mm-hmm. ak intérêt bi xam nga ki laabal ki laabal moo war a moo war a njëkkee. dëgg la. doom ak waajur noonu la mel. Mm-hmm, mm-hmm. balaa jigéen di ko di ko bëgg dafa fekk da jigéen lu muy bëggee góor tubéy jee tax mu koy bëgg. Mm-hmm. dëgg la. tubéy jee njëkkee mooy mujje waaw. tubéy jooju nag bu muy takk bi muy takk ki ko gis takk boobu di ko laabal mooy yaay. ki ko ñiitoon. wallaahi ndeysaan. yaay jooju bi muy def baaraamam di ko lokkor ci di ko lawal ba mu set wecc wallahi ndeysaan booba kenn bëggul kenn fekk fekk déedéet yow de yow nag loolu tax ma ne la gis nga boo doon gor waaw yaay jooju moo lay tànnal yaay jooju bu la jabar ju la tànnal kooku du jëw mukk ba nga am ba ba weer dëgg la wallaay dëgg la yaay jooju moo war a tànn yaay jooju moo war a tànn loolu tax ma ne la loo xam di mbéy wu matt gan gi. xam nga xaj ba la teg gàcce. billaay xaj ba la teg gàcce. <laughs> moom yow yow de sa dëgg gi bu korte gi jege jege si wul woon ma jox la jasneer waaye nañ ko dàq déwén. incha allah rabbi <laughs> wax na fekk du dëgg. macha allah. macha allah fa tabarakallah nii la solo. Eh, yu am solo rek la téléspectateurs yi di indi nee naa mhm. leen ñun xamuñu dara waaye nag dañuy tegaat ci raay bi mhm. def naa ne li mu wax moom wallaay dara du ko dindi pure la wallaay dara du ko dindi <laughs> mbéy moom bu mate màttee gan xaj ba la teg gàcce wax nga dëgg ndax war a mat xaj baa ne yaa wallaay wallaay xaja war na yàlla sa sàggan ba jàmbur di ñëw di mm-hmm. torturer sa sa sa sa sa wayjur mm-hmm. kooku yaakaar naa ni ci yow la yow la teg gàcce dëgg la waaye daal ànd ak lu mën a xew doom yi nañu taxaw jur yi waaw ñu leen jàppale mm-hmm. euh, lu ñu am nañ ko bokk ak ñoom góor ñi itam jàppale seeni soxna. waaw surtout nañuy jàppale jigéen ñi tappalaatu bi metti na wallaay wallaay wër soble wër pombiteer nga indi ñaari ginaar ñëw sànni loolu laa am jox ko xale yi ana lu ñu war a soloo nga ne nangam nangam loolu du sama yitte te jigéen ju nekk nawle nga am donte waxuñu la ne la sa doom def ci loo xamante ni mënoo ko waaye nag boo sañoon tey bu say doomi nawle taxawee sol luy jar junni sa doom taxaw sol fa luy jar ñeenti téeméer yimpañ da ngay gis yaay yi dañuy dem bitigu chinois bi daal 1000 francs yére 2500 muy ah, juróomi téeméer léegi yow kan moo la feeñal sama bitig man <laughs> <laughs> musoo dem brique samay bitigu doom sama bitigu doom yow kan moo la ko feeñaloo sama sang yooyu dañu dem chinois mais gis nga Impagne waaw ah, baax na loolu noonu bu fekkante ne am na keneen ku nekk ñu jël ko ci 88 628 14 13 ñuy waxtaane koy tegeek li ci aajo yëpp allo mhm. waaw salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na ngeen ñu ngi sant yàlla bu baax waaw maa ngi ziar ñu ngi delloo ziar bu wér dama bëggoon participer ci émission kër waaw ñu ngi lay déglu euh, sànq soxna si dafa ne waaw bu euh, nga ujjee mais sa borom kër bis boo sa njaboot màggee rek mooy doon sa wujj. waaw ciy borom kër. waaw yenn si borom kër. sa hmm. njaboot màggee ñooy doon sa wujj. waaw waaw. loolu laa la wax ni la dama ko dëggal. Hmm. jërëjëf. sa borom kër bu sa njaboot màggee. Hmm. ak loo leen mënoon defal ci àdduna. waaw. dañuy lay def wujj ba jël loolu la ñaan. duñu duñu duñu bu ko bu wujj ga sax buñ ko mënul ba mën ko ba mën ko. jalal na leen wuti jigéen sax. Mhm. takki jabar sax muy wujjeeg yow. Mhm. ndax ñu kontaan. dëgg la. Mhm. dëgg la woo lay wax nga paketu dëgg. waaw ah, lu lu doon def da naan doomam mën na ko ah léegi doomam màgg na léegi. Ah, moo tax lu may jaay. waaw <laughs> doomam màgg na léegi moo tax sax pour fanaan si ci néeg bi sax problème la. léegi dafa may jaay affaire ndax yaakaaratuma <laughs> yooyu la ñuy de. day na waar mais métti na sunu seen jàmm yàgg. amiin ok ñoo ngi def noonu. jërëjëf merci beaucoup. ndeysaan seede la boo xamante ni ki dem bi fi waa kër Baye Mbaax Mbaay yi ñëwee. Mhm. Euh, ñu ne ma Baye Mbaax ba bi muy wuy sunu borom mooy joxe dépense. wallaay ndeysaan mooy fay ndox. Mhm. mooy fay courant. loo wax mu ne na leen seen doom defal. foot bu jotee sax nag nag mu ne bu benn jigéen laal samay yére. yóbbu ca pressing ba. su ma ko mosaan dégg mu ne man maay fóotal sama bopp bi ma ko njëkkee dégg ma ne ko Baye Mbaax luy loolu. Mhm. mu ne maay fóotal sama bopp ko déet Baye Mbaax taxawal mu ne ma. awa bu ma ŋàbbee sama yére yóbbu ci pël la foto bu mu foot ma ku foot ma ne këpp ki suuf ndeysaan <laughs> macha allah yàlla na xippee aljana moom tamit euh, ku ñu marke la ku ñu marqué la dans mm-hmm. notre vie ñu ngi koy ñaanal njabootam yàlla may leen xolu muñ amiin di nuyu bu baax ku ñuy wax euh, soxna euh, sëy mm-hmm. defe naa non astu sëy mu ngi mm-hmm. tuubaa yaay mam Faat yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaar di kontaan ci moom Euh, daf ci am benn problème boo xam ne souvent dañ koy faral di dégg fii xam nga tey moom indi indiwuma tradipraticien. waaw waaye tey may tradipraticien bi. Mm. Mm-hmm. tey damay faj. ok alhamdulilah. cest am problème boo xam ne dañ ma ko yàgg a posé. mooy muy mag ñoo xamante ni dañuy tour ndox. Mm. ba ci néegu sëy am na ñoo xam ne mënuñu sëy ndax loolu mm-hmm. am na ñoo xam ne xale yi 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans ba 15 ans. Mm-hmm. loolu yëpp mu indil leen problème. soxna si dégg ko ci télévision bi day omoro moom woo naa ko ba sonn ci ndaw soosu mu doon wax mais mënu ma jot Omaro mm. su ma jotee pour ma boole ko ak moom ndaw soosu mu wax ne sëyam a ngi bëgg a tas ndax tuur ndox loolu sax moo indi xamante bi mm. soxna si ma waxee ne ko woo naa Omaro jotuma ko mais am naa ñu ko yittewoo parce que dañ ma ko doon posé mais mu wóor yàlla wóor yonent bi bi ma xam mm-hmm. nga xamante ni moom au moins day doon ku la jege waaw nga mën a enquête di nga mën a laajte bi mu ko jëlee ak suñu jonn yàllay tey mm-hmm. tuuratul ndox may ñaan nag képp koo xamante ni yittal na la rek. Mhm. mbir moom waaw parce que dafa metti waaw wallaay dafa metti jigéen joo xamante ni gis nga keroog. ku jigéen ki bëggoon a sëy. mënul sëy wallaay rafet. Mhm. wat boppam ba mu nice macha allah war a mën a jar lu bari mais nee na du ma sëy. parce que damay saw. wallaay ndeysaan mu ngi dëkk fii Dakar moom tamit amatuma numéro mhm. su fekkee mi ngi may dégg na ma woo. te vraiment kooku jaamu yàlla dëgg la ci def. Mhm. du kuy toog naan jox ma fukki junni ak juróomi junni. Mhm. nee na addiyee Serigne Fallou la koy def. ndeysaan donc euh, moo tax mu yombal ko noonu. may ñaan rek képp koo xamante ni dal na la na ma woo. 77 534 91 85. képp ku am kuy tuur ndox te jëlewu ko ci wasin nag. dañ koy jëlee ci wasin léeg-léeg nga jëlee ko ci wasin nee na ku ko jëlewul ci wasin mm-hmm. moom lim lay jox mm-hmm. boo ko takkee limal na ma ay kër ñu siiw ñu baari ñoo xam ne macha allah mm-hmm. ne ma diw am na ku ma boole loon diw diw diw man ma jël ko boole kook ñaari nit mais ci la tàggoo ak ñoom. lu may wax ci télé bi nag di ko garantil nit naan ñëwal ko. day fekk man ma tekki sama bët. Mhm. man maa ko garanti maa ci teg sama bët. ma en tout cas lii moom gis naa ko gis naa ñu ko testé ba dix personnes. macha allah ndox. donc dama ciy kontaan. Mhm. di ko nuyu bu baax a baax soxna soosu soxna Assou nekk diwaanu Touba. Mhm. jànq yaakaar naa ni. Euh, doy lu baalonte ak ci la ñuy jeexale mm-hmm. incha allahu taala Pape da ngay def si ñettan bi jeex na déedéet wala des na <laughs> voilà donc mu ngi noonu mën nañu continuer di àndandoo ak euh, nit ñi uh-huh. yakkalante yeeg yooyu c'est bien beau laax yeeg yooyu di ko seddale c'est bien beau mm-hmm. mais koo yàkkal laax ma ngay araw am na koo xamante ni amul lu mu laax yi jax ko njëg njëgu sanqal ak soow waaw c'est moo gën te nit ki am na teraanga yoo xamante ne bu la ko jiyee sa diggante yaag moom rafetal ko mm-hmm. te xam ne jàppe na rek daf la yekkal mhm. nit bàyyi na yekkale ndax ñaaw-ñaaw ga topp ca yekkale ga mhm. ñaaw njort dafa am ñoo xam ne ñaaw njort na kimpañ ndox sax boon ko joxe duñ ko wóoloo naan ba xam nga nit ku nekk sa bopp ngay joxe ah du moom laa la wax nit ku nekk li nga am ngay joxe barke yonente bi yow mi boo xalaatee tey boo demee kër Adja Mbaye mhm. lekk fa ah Adja Mbaye mën na ma fa def dara parce que kon bu ñëwoon sa kër léegi fa yow da nga ko def dara da nga koo pareel biteel ba teg waaw mu ngi noonu kon yow da nga koo def dara da nga mhm. xalaat ne bu ñëwee sa kër di nga ko def dara mooy mhm. wala tax yow doo wóoloo lekk këram c'est sûr mën na faa def dara c'est sûr nit boppam rek lay joxe mhm. nit li nekk ci moom rek la mën a xam mënul xam li nekk ci keneen dëgg la léegi nag tout le temps nga gis nit jël benn étiquette takkal ko nit parce que moom boppam la jël taxaw ci seetu man ne man kat ndey petaaw nii laa mel nangam ak nangam ak nangam léegi moom bu moom mu sol ku mu gis moom la koy solal moom la koy solal moo tax nag day méfiant ba mu ëpp sûr léegi nag bu ko defee loolu da lay sonal parce que nit yàkkal la ah lu ma yàkkal <laughs> laa soo de lu ñu ci def du feeñ moo sànqal fekk na yow amaana boo doon yàkkal nit wala nga fekk ci tipp tipp bu ñuul waaw fekk ba muy garaate muscade la ca muscade ba tëb laal nga ne soo ma dafa ñuul kuk moo yow gis nga ko soo de lu sa ñuul dañ ko see def ñaaw njot yooyu noonu nit dafay sonal boppam te ñun ñu bari ñu ngi dund loolu ndax ñoom ni ñu mel noonu la ñuy joxe nit. Mm-hmm. man neewoon naa la gis naa ko xam ne bu xëyee gis uh, ñu arrosé ay tooy sax foog na ne fleur yi luñ sa def la day jël ndox onge bi laay mën a seytaane ji bis onge bi laay mën a seytaane pour mën a jàll <laughs> pour dem pour wax la ne la nit ni nga mel rek loolu ngay joxe yow boo bëggee noppal sa bopp rafetalal sa xol laabal sa bopp mm. loo yéene nit nga jiitu ca jàmm rek nga am ngay ñëpp jàmm nga leen yéene kese mais nga jël sa bopp def ko moom du jël ñi si des def leen ay maamadu nga foog ne yow yaa gën ñëpp yaa gën a baax ñëpp bu nit gàddoo saagam nga ne mu ngay dem de. Mm. moom da koy teg lay waajal. wallaahi bu bu demee mu ne moom lu mu indi. Mm. moom moom ndax ñu ngi togg moom moom ndax nangam ak nangam sonal sa bopp sénégalais. ñun paa ñoo gën a sonn bu fedd mm. jub si. surtout dañu sonn bu fedd jub si bu fedd jub si bëgg nañu lu ñu amul. ñu ngi yootu lu ñu jotul. yemale wuñ suñu ay bëgg-bëgg. wallaahi lu nekk ñu bëgg ko ñëw def. Mm-hmm. te feet bi. li laay war a suuli boo amee sa laax laax boo amee sa ngalax ngalax <laughs> boo amee sa ceeb ceeb lekk ba sa biir amul jënd sa liibaru mburu ndekki togg sab añ waaw solo say xale bégal leen. waaw euh, dama koy souvent xale yi nañ leen bégal. Mhm. parce que laax boobu yow sax bañ ñu dem kër nit fekk ko fal moom la te defe naa ni laax jafeetul. déedéet paquetu sànqalu juróom fukk am na. am na bu téeméer am na. Mhm. mbuusu soow ba ci bu ñaar fukk am na. na waaw defal li nga mën mhm. nga bégal sa njaboot. ñoom bañ bu ñëwee di taaj booli. ñoom defal leen ci kopp bi ñuy ndekkee. waaw ñu lekk nañu lekk rek xale ñu ko sax yomb na. na sangu. solu nga defar ko parfum ah waaw yow taxawal ma fotal waaye yow gis nga sa robe bi ah. day jàppe ne moo jàpp dàq ñëpp sañse ñu def ko bégal xale yi mm-hmm. te surtout nag ñu vigilant mm-hmm. ñu mm-hmm. réew mi metti na réew mi naqari na réew mi doy na waar téeméer ak ñaar fukk ba xale bay indi ndewenal nga jox ko ca ñeen fukk juróom-ñetti fukk yee nga teg ko sa bopp lal roñaat ko mu jeex bu ñuy bàyyi sa xale yi ñaani ndewenal hmm? jëla si liñ bu ñu paree ma wax la li tax nee ko ñu jël ko si 88 628 14 na. nañ ko xaarandiwaat rapidement ñu may ko chance am. waaw mu dellu si waat. Hmm. nga tax bu ñu bàyyi xale ñu ñaani ndewenal bu ñu xale yi ñaani ndewenal hmm. ndax segam léegi magum lëmm. Hmm. dañuy sàcc yóbbu. waaw ma sama xale bu ndaw. jamono ji dafa toll foo xamante ne nii. boo paree uufal say doom. waaw teg leen kaay ma meewal leen. kaay ma defal leen nangam pour nax leen pour téye leen ci kër gi. ci kër gi gis nga fête ji di jub si ñu bëri si la ñuy profité sàcc genn wàll xale yi ñu soxla woon. billaahi xam nga tóola woon. xam nga taux la woon. taux waaw waaw. taux ñu ne comme par exemple soxla nañu téeméeri xale. waaw léegi nag am nañu euh, dix xale. des na nangami xale taux la. léegi nag feet ji na waajur yi vigilant tey seen doom yi seen kër yi. wecci ku ku nekk téeméer nga jox ko wala ku nekk ñeen fukk xale yomb naa bégal. mu ngi noonu boo amulee yimpaañ nga yootu say doom nax leen toog doom danga koy yar. ba li mu du li muy gis kër jàmbur du for fos daf ko war a am ne leen ne leen tey jii kat ñaani ndéwénal amul yooyu yëpp ay pexe la tey jii kat ñaani ndéwénal amul mooy suba dinañ dem seen kër maam waaw fa lañ demee sa maam demul sa ndéwénal booboo gën a duur loolu nga koy naxe mais xale da nga koy nax mais bàyyi xale si li ko neex mu mbal kaw mbal suuf ba jëyee ñëw ne këpp sa kaw fu nekk nga yuuxu fa nangam ak nangam ak nangam ak nangam da koy jar ñun ñi dëkkoon ci yenn koñ yi nga xamante ni mbokk yi mën nañu dugg ne ah parce que dese nañu quelques minutes une dizaine de minutes yoo xamante ni mën nañu ànd ak ñoom uh-huh. léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni uh-huh. da ngay toog ci mbedd mi léeg di yor ay weccit pour joxe ndéwénal mais da ngay gis xale bi xam ma bitigu chinois yooyu nga wax rek dañ ko ci jëndal talon boo xam ne nii la toll <laughs> day sonn gane si ndox mi rob bi walang bi <laughs> wala ñu dem jënd basin boo xamante ni defal ko ko rob taay boo xam ni jot na mbayeng su doxee dem ñaani ndéwénal wàññeeku balaa ñëw benn talon ba wekkee ko du mën a def tànki ne day coos benn bi <laughs> sonnal la ko coono boo xamante ni def ni yaa xeeti mu laa ne dañ ko yombal wallaay dañ ko yombalal xale yi bàyyi leen ci kër yi mm. vraiment neexal leen kafal leen bu subaa ngeen def beñe bu subaa ngeen def fataaya ci li ngeen liñ leen jot amal yaakaar naa ni loolu daf ci nekk loo xamante ni lu am solo la te nag maa ngi doon dox ci commencement bi yor sa doom xëy suba teel di wuti loo teg ki taabali màdd ji moom ma nga pose ay xefam rocci ba weex teg chevam ah xam nga ku togg xam nga ku posé we nag jour trente euh, jour euh, kii yimpaañ jour mm. koy te na la togg ah xale dañuy pose àndul nag posé yaay yee togg ah ok ñooy togg yii foofu da ah. yaay sàkk ñuy rusi seen kanam gi deretal bu guddee bu ñu demee ci soirée bi <laughs> maquillage bii ñaaw loolu ci man ak yow la jik seen yaay yi ñooy futteeku déggoo man la yaay ji day xëy suba teel dem dem syndicat wuddi màdd ak mango ak tàngali gone yooyu teg ci taabal ji yow yaa ngi rocc ba weex yaa yor dépense bi yaa war a indi ginaar yi sa yaay heure bi dem syndicat fajar googu ci lay dajeeg yow mm. su ñëwee indaale ndugul nag daal di koskosal daal di taal soo yeewoo bu ci saytuñ te léeg-léeg sax dañ lay may kooku dina rosi day deretal ah kon man naa poose waaw ah, hmm? kooku mën naa poose kooku day deretal kooku poose dagan na ci moom mën na hmm? poose day deretal waaw mën na poose hmm? ba tey rek <laughs> mu nekk yoo xamante ne man dugg naa benn kër goo xam ne yimpaañ fukki jéega nga fa di sëy xam nga koyte gi ñuy wax am na ñoo xamante ne bu seen goro yi soriw la dañuy dem julli ji dañuy dem julli ji seen kër goro parce que c'est normal mais concurrence bi nekk foofu non déloyal am na ñoo xam ne sëy yu bari fa lay tase wala fa lay dënge am na sama benn collègue boo xamante ne dafa am benn maison bu ñu bokkoon man ak moom mhm. koyte bi jub si mu ne ma yii ndey maa ngi waajal koyte gi sama wujju peccor ga dañuy ñëw nangam nangam mhm. far yàlla def ba mu demee waajal ba ba àgg mhm. kenn ki nekk euh, wanu lor kenn ki feebar mu ñëw mu ne ko waa madame diw naka sa koyte mu ne ma ku may defanteel kee nga kii ba si noppam ka sedes dafa feebar la ma indi yóbbu woon yëpp daal nii laa ko tege <laughs> ndax gisuma ku ma defanteel xam nga xam nga yooyu uh-huh. yooyu yooyu damay wax ne bari na loo xamante ni uh-huh. yoolu yàlla lañ ci commencé wut mais ba benn fan ñu effacé yëpp uh-huh. Euh, seqal ak jàmm ak say goro mhm. seqal ak jàmm ak say njëkke mhm. c'est évident mhm. goro da koy wétali am nañu ñoo ñu bari ñoo xamante ne mais maman vraiment on avait décidé de ñëw ñu Korité foofu mais nag juste après la Korité dama am benn réunion boo xamante ne te xam naa ni su ma déplacé woo ñëw damay sonn yaay danaa naa ah waaw waaw mhm. jéggal naa la ko nan nan raay sunu bu jë ba tabaski yaay ju compréhension ndax eh, eh, dañuy wax ne saabu bay fóot doom mhm. bu ko nday yoree përngal ba du jeex déedéet te am na compréhension boo xamante ni day dox ci yaay mhm. mais yaay itam da ko war a wéttali dëgg la gis nga li waa ji waxoon ne li ma sama yaay liggéeyal mën naa cee dund ba keroog may dugg biir suuf dafa fekk moom dafa gont wallaay wallaay Ndeye Sophie Seck yal na ko yàlla yokk wér moom Ndeye Anta waxoon nañ ne mhm. bu sa yaay xëyee liggéey te gontuwuloo mhm. yàq nga sa liggéey yàq nga sa liggéey ndey waay waay yàqu na te it nag boo yoree njaboot gu màggagul lu ne ngay dégg wallaay sama yaay na ko ndeysaan benn xew mhm. ne ko yaay Maada Thiam di nga ma sa kontaan yàlla nga gën a kontaan yàlla na yaay yëpp kontaan waaye daal bu sa yaay liggéey na nga gont doom day am jom doom day tontul ndeyam yii soo de bu soo nee na ma nday ma ne ko naa mu ne ma doom day tontul ndeyam xewi na xewi na ah kon tontootuñu <laughs> sama yaay te kat da ngay daje koo xamante ni day toog nag nangu ngay rëdd ki sa yaay. Mm. mu toog di la déglu. d'accord sama yaay. Mm-hmm. sama yaay. sam papa. sama yaay waaw lan lañ ma bañee. sama yaay sam papa. nga naan yaa bañ la sa bopp. nga naa moo ne bañu la góorgóorlu rek. dinaa waxtaan ak moom nangam sangam. Mm-hmm. sa yaay dala bañ. Ah. génnal ci biti man duma la bëgg. ndax ba mu lay jur fekkew ma ko woon. moom bu la ko joon sa hôpital ba nga dee ba muy sonn ci yow fekkew mm-hmm. boo judd woon mu dëj ci sa kaw rek. Mm-hmm. tey sa bàmmeel la ñuy wax. comme bëggu la nag man duma la mën a bëgg ci biti. dëgg la man barke yonent bi dafa am yar yow xamante ni. Mm-hmm. nit ki daf koy am. dëgg la waaye ay waaye déedéet waaye déedéet dinañ waxtaan ak moom la waxtaan ak moom. doom ju ne fet jël ndeyam teg ne. wëlbati ku ne sama ndey damaa bañ. nga naan kon waaye nag pour lan. doom jaam manqué rek parce que yow boo demee bay xool. manqué gul waaw manqué gul de. nu mu def ah cim ba ñu dem ba ci kanam. Mm. ba moroomam yépp yéeg. Mm. mu bëgg yéeg mu di ko të. Ah. foofu lay xamee ne manqué. ku mu jàppandi mu bëf mu bëf ko mu daanu. nan tàggoo joxante daje <laughs> incha allahu taala ba koriteeg jàmm ak salaam ñu mm. romb ko. waaye daal doom yi nañu fonkat seen i wayjur. surtout nañu jàppale seen i wayjur. nañu yërëm seen i wayjur te fonk leen te respecté leen. gis naa si xam ne jànq la ñu def seen yaay. seen yaay togg mooy fóot mooy raxas mooy bale mooy fobeere ñoom daal dañu mel ni nday petaaw rek. nee naa la yaay ji doon jël madd ak yaaboy bu taal. wax naa ko kenn ko def jànq. no da ngay doon say jànqi morom après. waaw bés du ñàkk sax. du deñ. Mm. du deñ. Mm. jëkkër yi nañu jàppale soxna yi ci kër yi. Mm. ki bàyyi nday bàyyi bàyyi bàyyi léppam. góor ñoom ñu dañoo judd retraité. mais am na ñoo xamante ni fi mu nekk nii waxuñu waxu korité ak seen jabar. xalaatuñ ko sax. du ginaar du yëre xale yi du ndugg mi du dara man gis naa ko. mais ñoom seen yoon ñoom li ñu daal classe su dàbba gi xoolal seen. jiin la ñuy def barke Seydina Mohamed gis naa ko. taxawee ne ñoom li si def seen yoon nekk si boo waxee ñu ne la débrouillé ah. sa yoon ci ginaar sa yoon ci ndugg. sa yoon ci yére xale yi sa yoon dal. waaw sunu classe gi moom mosu xam solu ko korité ak tabaski. wallaay xamuñu ko mhm. mais mais lo korité bu ñu nee ginnaaw suba la te yow waxagoo ginaar waxagoo ndugg waxagoo yëre xale yi kañ nga koy wax ah, yaa jaasay deewee rek waaye ñoo leen taamu woon ba ñëw seen kër waaye bàyyi ñëpp ndax yéen mhm. ñu ne déet ñu ne ah kay mhm. kon sagal leen ñu tàggool am na solo am na solo nañ leen sagal suñu mbokku jigéen ñi ndax comme dañuy faral di wax ne jigéen matul góor a koy mottali kon mm. ngalawaay góor ñi am leen yërmaande nee naan xale jigéen yi nga xamante ne dañoo yaakaaroon lu dul ñoom dàbba xëy gontuñu fi ne nii ñoom dàbba yóbbu na leen li bi metti na ñu ngay woote jotuñu jarul taree xale yu góor fi mu ne nii yéen tëj ngeen seen portable xale jigéen bu ñu yàpp seen pàllax de waaw xolal amoo yére toogal sa kër la la lan day asta namun loo namati waaw

sonal. kon di nga tala solo da ngay solu fa taw de. man damay garabu nelaw nelaw <laughs> kon di wax ne lépp luñ fi wax rek mata di na yàlla yokku xéewal gi. amiin ñu bokk nañ taxawaay bi rafet na léeg-léeg mu dugg ba mu rafet rek ne ma am dama eh. yóbbu ji meer ah léeg ah, sa jàmm yàgg moom daa mën di ñoom Badiane Mané ñoom Rokhaya ñoom Gaye ñoom ñëpp suñu techniciens yi ñoom ñëpp ñu ngi mm-hmm. leen di jaajëfal Pape Samb Daba mm. ñu nekk ñu baax ñoo xamante ne ku si ñëw rek day ubbeeku ubbi sa bopp di jaajëfal suñu PDG ah, monsieur El Hadj Ndiaye suñu xarit ñu koy nuyu ak Abdou neel El Hadj <laughs> foog ne dara passé na boobu dara weesagul dara weesagul ah, ah. ginaar lañ ko sukar ah, ñu ngi ñëw <laughs> <laughs> jërë ngeen jëf jërëjëf daf yi euh, macha allah Abdul fa la jaar ak man ci koor gi sala naka noonu macha allah te dompat sax ci sot la bokk waaye Ndiaye teggiwu ma tees bi de mm-hmm. suukar si passé na mais soble si kii wagul mm-hmm. ñu ngi lay déglu nag am na yoo xamante ni mën nga koo yónnee te doo ma gis waaw ba ci pompiteer mm-hmm. Marème Ndiaye Diatta moom moom moom macha allah moom tamit mention spéciale à elle ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant gërëm équipe technique bi ni nga ko waxee xale yi lu ne laa leen di yàq ca buntu kër ba laay toll jox leen saag yeeg bagage yu toogal fii man leen toogal foofu takkal nii micro man leen def ma loolu mm-hmm. ñoom ñëpp jox ma cër donc maa ngi leen di ñaanal mm-hmm. yàlla nañu yàlla may ñu korité jàmm salaam yàlla yombalal leen ñoom itamit luñ ci def ndax ñoom ñëpp jom rek moo leen fi bàyyi ku ci bàyyiwul soxna rek yaa ngi bàyyi sa ndey mm-hmm. di wut loo ko jox loolu moo leen yóbbee tey li ñu am tey kon yàlla ko yàlla gën a yokk yokk bépp doom boo xamante ni rek yaa ngi wormaal sa waajur te di ko suturaal te di ko jàppale collection la ma defal mhm. macha allah te xam na ni man man VVK laay dundee Vaxoval xartum mhm. te it nag daf ciy def ay brodé gi yëpp mhm. defal ma ay brodé defal ma ay ñaw wala ñawal ba ñawal sama njaboot lu ñu korité kon daba maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla mën déwén lu ko vraiment mën ngeen a am mën ngeen a am yu mel nii ci 77 363 21 21 mën ngeen ko ci am bu baax a baax maa ngi koy nuyu du nuyu Hakim Diop mi nga xamante ni macha allah dinaa dellu si waat ak moom incha allah ci émission bi euh, ndax njariñam kese waaye daal képp koo xamante ni da nga yor kuy tuur ndox muy mag te jëlewu ko ci wasin mhm. soxna sii nga xamante ni testé naa ko mhm. junj nag doy na borom xel mhm. xëy na maa doon tuur ndox <laughs> ndéet dama ci yeggal gars yi di junj day na borom xel euh, macha allah daal li ma ci gis kooku dund ko. Mhm. ñooñu dund ko. Mhm. fa tabaarakallah donc ku mu yitteel ku ne. Mhm. jàngoro jooju dafa mettite te diis di ma metti man ku mu dal. loolu moo tax ma yombalal leen ko mën nañ ma woo ci 77. 534 91 85 mbokk yi jàmm ak jàmm ba déwén ak jàmm ak salaam ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amanillah got you.